benn Korent saar ñett. léegi nag moo woon leen yoon wi gën lépp su fekkee ne damay wax làkki nit ñi ak yu malaaka yi sax te boolewuma ci mbëggeel duma dara lu ndënd muy riir walla jóoleelu buy kàndang kàndangi su ma yëglee wax ju tukkee ci yàlla ma xam lépp luy kumpa ma yor xam-xam bépp te gëm yàlla ba mën a randal ay tund fekk boolewuma ci mbëggeel duma dara te su ma doon saraxee li ma am lépp di bàyyi ñu lakk sama yaram ba rey ma su ma ci boolewul mbëggeel duma jariñ dara ku bëgg dafay muñ te laa biir ku bëgg du kiñaan du kañu du tiitaru du def lu jekkadi du wut njariñu boppam du naqari deret du ñaaw njort du bég ci lu awul yoon waaye dina bég ci lépp luy jollil dëgg mbëggeel day bale lépp am ngëm ci lépp yaakaar lépp muñ lépp mbëggeel amul àpp ñuy wax ci kàddug yàlla dinañu noppi ñuy wax ay làkk dinañu ko bàyyi ñiy xamle xam-xamu yàlla wàcc xam-xam bi nu am des na te ni nu jottalee xabaar bi nu yàlla dénk des na waaye li mat bu dikkee li matul jóge fi bi ma dee xale dama doon wax ni xale di dégge ni xale di xalaate ni xale waaye bi ma doonee mag bàyyi naa li bokkoon ci ndaw tey jii gis bu lëndëm lanuy gis ni takk ndeer ci seetu bu lëndëm bu ëllëgee dinañu gis jaxran tey jii sama xam-xam des na bu ëllëgee dinaa xam ba mat sëkk ni ma yàlla xame léegi nag ñett yi ñooy sax ngëm yaakaar mbëggeel te mbëggeel moo ci raw